والسلام دقنا صلاة دقنا سلام جخنجي يا من عليه السلام كوكم يا كم سنگ بي ام سلام جبور يا لبور بيت رمدي سلام يا نن مم لبور يا لميلوي سلام صلاه wala la soo su mu doon nga ñàkk doon ba yow. loolu nekk nag dama ko rek. li nga may waaye au une heure ay naw man ñaa koy jox leen wóor. kan ma la ko wóor. ah ñàkk jom yow nga war a dem liggéey nga koor gi. wóor doo ko def. booy man li may liggéey. ak bandoo bi nga tiim li ñëpp di liggéey. booy dafa tànk. koor gi dafa métti. fii lay toog gérer sama koor. dégg nga yow est-ce que war. yow xam nga xam la am na yenn yoo xam ne baaxul yow yaay kilifa si yow mooy loolu xaw a ñàkk jom li nga lépp ci alxuraan boole mu ma indi li ma dox moo bëri xam ne mu sawi jaar demal ah, parce que moom gën a wax ci bëri bi ànd rek rek te wóor nga ñibbi ba tàmm نبيك اللاخي فصل بالسلام عليه بالرسل جميعا يا سلام yàlla may nu te jox nu jàmm ak salaam te jox Moustapha li salaatu wa salaam yàlla may nu te jox nu pee salaam ci barkeb sëriñ bi nu may Bueno, bueno, ya para. daal yàgg nga di tuwaale di lekk. yàlla na moom. moo tax ñu ne maa ngi di tuwaale ba léegi rek doo ñëw. waaw lan la waaw lan laa tàmm moom. juwe ji juwe ji léegi moom daf loo. saa yu. caa juwe ji bi juwe. saa sa kër bi day neex. caa juwe ji bi maa sonn si ndam la ngoon. loolu sa affaire la caa juwe ji bi caa juwe. waaw caa juwe ji nii mu sonn. yow loo def sama waañ bi ah daan lan nga doon def sama waañ bi laa wax. li ma yéex li mooy lan. li tax duma la yee xam nga sant dégg naa sama waañ bi di kër kër. xool lan nga doon def sama waañ bi ma fontoo la sa benn waañ. yow yaa fi dugg ma dégg ku mel ci néeg yëpp di war dëkk. xam nga wóoroo. eh laajut ma la sa sol saytaane nga mel ne ku baax. ah man maa saytaane ba sa baay ñëw. saytaane bi de moo jëm ma sa baay. waaw loolu yaa sama baay la mais du man. xoolal sama waay nga njëkk tey nga mujj tey ba dugal sama waay yaa ngi may dégg bu sa bàyyi ñëwee dinaa ko wax. wóorul. waaw toog bay bëgg a dee.